nekkul Modou ñu dem sixième komba diggante bébé Yamou Sarr ak bébé Walf oh ñaari bébé lañu ñaari bébé lañu kan moo ci ëpp daa ni bébé Walf moo ëpp. mais Bébé Walf bëri nay gàllaaj Bébé Walf bëri nay xarfa xurfa Bébé Walf yàggal na combat bi waaye préparation bi yàgg na trop mel ni seet buy waaj oh wante arbitre soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar arbitre soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar diggante Bébé Walf ak bébé Yamou Sarr waaw waaw drapeau Cheikh Senghor drapeau Cheikh Senghor ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo lewaatoo bi o bébé dóor na bébé Yamou la ñu jàkkaar lool dóor na mais dalul waaw waaw attention oh ñoom ñaar ñi ngi cokka diggante bébé walf ak bébé yaamu ñaari bébé bébé au carré cay loolu Basirou Diouf Ram Diouf a ñoxo bàyyi la eh mbay jen Bébé Walf plaqué na ko daan na ko Bébé Walf fiir na ko Bébé Walf fiir na ko plaqué na ko daan na ko mayen yéen ma oh, doole doxul jàmm doole doxul jàmm waaye Bébé Walf mii bànd la xool ko ma ngay reculer waaye ma ngay gas ma ngay gas di reculer waaw waaw Bébé Walf Bébé Walf daan na Bébé Yaamu